Euh, salaamaaleykum mbokk internetu Sénégal TV dal na a seen biir émission nekku nu jigéen tey nag nekku nu jigéen dafa ñëw si beneen thème mooy lan jonge ma nekk invité si sama biir plateau benn xale boo xam ne ah man mii sax dama mujj jonge sax si saa si maman maa lay dalal. waaw waaw man nag ci jonge nee la ku ma bokkal plateau ku nekk rek doo ko rëccu ndax man nag ci xale. ah man de macha allah ma rëccu ma ko. am mbégte bu baax a di nekk ak yéen seen émission nekk ñu jigéen a loolu dina ma neex dina ma neex ni nga dugg see saf na ma neex na ma trop ah ni ma dugg see ak sa tagg lu baax ma macha allah maman eh, nekk ñu jigéen nag ñii la koy defee saa su nekk maman nag tey ñu indi benn tam mooy lan joge loo xam ne dafa nekk ci actualité bi nga war a waxtaan ak suñu mbokk euh, internet Sénégal TV nga war leen wax lan mooy joŋe maman lan mooy joŋe. ah man loolu dama ciy sawar di leeral ci internet yu Sénégal TV bi joŋe mhm. parce que dama yaakaar ni joŋe. Uh-huh. du ci jigéen dong la jokk. ci xale jigéen dégg loolu joŋe. Uh-huh. mag ndaw uh-huh. góor ci ñooñ la mag ndaw góor léegi mag ndaw góor. déggoo ma de. daaw de maa la neewal neewal teg naa sama loxo.

ñi may wax a ah. mais am na ñoo xam ne. Ah. yàcc ni yasar lañ def te man bëgguma loolu ci jigéen. man de maa ngi dee sama biir plateau waaye. Ah. jigéen da ne ma jigéen nag boo bëggee la sàppali bul fàtte benn yoon la la war a sàppali. te moom jigéen normal lan moo ko war a sàppali jigéen da war a xajam. xajam mooy bu demee taxaw nii nu allah macha allah déggoo ma ne jigéen noonu la waree bëri ruqruqaat. waaw maman ñëwal ma si ruqruqaat jigéen. waaw jigéen da war a xajam bëri ay affaire bëri bagage. dëgg la déggoo ma de. dégg naa bu baax. bëri bagage du tax nag ñu naan fer. potu cuuraay ak li nga xamante ne moo di sërinoo ci eh, déedéet man loolu dama koo contour loo jigéen ci ay geste sa danga cee war a jóge man lii laa wax déggal loolu maman geste si ban côté parce que man sa jaagat jaagat sa dugg si bee sànq man waaw man nee naa man rek ci xale uh-huh. moo tax na damaa contour xale jigéen yi nga xamante ne uh-huh. ah uh-huh. jongewuñu bàyyi ba am jëkkër di jonge déedéet man aw ma jëkkër maanaam maanaam loo tali daal loo jàngul daal mënoo ko tari daal yow loolu nga bëgg a wax daal ah boobu man nag sama mbokk internet Sénégal TV ñoo ko gisandoo tey nag xale jonge laa fi invité de ma maanaam man la bëgg nga ñëwal ma ci affaire yi jonge ñëwal loo bëgg a wax foofu dama lay laaj yow ba ma nee tëll rek sa biir plateau déggoo ma de man dama nërmeelu man xam naa bu yàgg gis nga gis nga xale jigéen yi nekkul ni rek da ngay ba am jëkkër di suul say yëre déedéet. ah bon war a def say yére cuuraay yu baax. pour maman maman maman attention war laa a suñu ñëwaatee suñu maam yi nag dañu ne sooy suuru doo am jëkkër da lay ub. déedéet man loolu dama ko kontu. ah bon maam yi njëkk yooyu ñoom dañ ko daan def. Ah même soo amul jëkkër sax mën nga ko amul jëkkër parce que yow da ngay dox ci mbedd ba ngay ñëw da nga ko def yow tamit nag macha allah lu may sant fii man kese maa ko xam yéen nag ñoo ko internet Sénégal TV ñoo ko gisandoo maman nga continuer waaw ma ne man damay def ko bu baax uh-huh. bien vrai que aw ma jëkkër ah mais balaa may génn damay waaw macha allah def na ba mu baax def na ba mu baax damaa xam ku may tasal ci yoon bi doom nday ñu bëri Cornew la bu ñu doon ñëw. allah suma xaalis yi nag Macky Sall tey jii su ma ne woon draft. si ah déedéet wuy ma bugguma problème ak Marième Faye Sall. kii nag na yem affaire jonge la ñuy wax. moom ngay wax dama ko cee naw parce dafa jël. palais macha allah ñu ngi koy ñu ngi koy ñu nuyu. koy bëggee bu baax a baax nag ci cuuraay ji mi cuuraayal suñu kii bi nga xamante ne moom lañu am palais man damaa bëgg jigéen jonge damaa bëgg jigéen léegi maman man ma ci xeetu ci xeeti fem yoo xam ne jigéen ñi war nañ ko utiliser. Euh, pour jóge. jigéen daal lenn laa ci xam. waroo mhm. bàyyi ba guddi rek nga naan damaa war a jóge ci kaw lal ba ah déedéet. ah kañ nga koy commencé da war a am nooy def. ah déedéet déedéet sama mbokk internet nee leen ko bu ma sorko sorko na ma def ndànk rek te naa ko méttiwul jant de. waaw man ko méttiwul man bëgg nga commencé fi nga commencé mooy lan ndékki ba. ak ma ci sawar. ñëwal ba man rek ci xale jonge lu tax nga indi ma fi. jonge rek. man déggoo man bu ma la dama am fit sax di di wax si mbirum jonge. waaw ma ci ndékki ba uh-huh. soo amee sa jëkkër. Uh-huh. bëgg heure bu demee sa xel li nekk ci moom. Uh-huh. waaw am mbay. donc fi sa loxo ma wax la. damaa bëgg bu yeewoo nga sang ko ba mu set. koy sang sa jëkkër. man xam naa bu mu tombeeg seddaay nag. man xam naa xam naa balaa muy uh-huh. yaram bi ba mu nii. ah koy diw luñ koy diw noonu. massage xoolal amul fenn. si suba teel jigéen ñi nag dañ ko tayal de xam nga loolu. mais tax ni ñu noonu nag. ah jigéen uh-huh. loolu yëpp si xeetu feeñ ah, naa ne ku ci jël leçon na nekk léegi ñëwaatal bis boo ko dugalee ci douche bi ba sang ko. Uh-huh. déggoo ma de. ah maa dégg bu baax bu génnee oyof lay def xam nga xob. ah oyofee noonu lay def boobaa journée bi yëpp sawar. maman yaakaar Sénégal TV xam ngeen ne man yéen laa fi nekkal ba tax dama leen di leeralal lépp loo uh-huh. xamante ne moo jëm ci wàllu jonge. ma nekk ci xale uh-huh. maman ba léegi yaa ngi ci ndékki ba. waaw parce que xob. Mm-hmm. dafa bëgg ku koy arrosé. tamit loolu la bëgg. dañ koy arrosé. waaw wow bu la bu la neexee soo sa yére bu baax muy féexlu le temps ngay dem defari néeg bi defal ko petit déjeuner au lit loolu lu may namm. dara su paree nga solal ko yére bu baax lu gars yi ah. dara la dul namm. boo nga defal ko yére bu baax mu sol. Ah. xool ko caravane solal ko kawas déggoo ma de peñal ko bopp bi moom. mama mama mama kooku day dem liggéeyi ji. déggoo ma de nga accompagner ko ba ci buntu bëgg déggoo ma de. Ah. may ko bis bu baax balaa muy yegg fu mu jëm nga yónnee ko message boo xam ne bu ko gisee day kat kat. man xaw ma ndax yéen mais man maa ngi dee sama biir plateau mama. lii la ah moom lii la wax de mbokk internet Sénégal TV ñëwal mama. lii la continuer waaw. Uh-huh. ba tax na nag balaa muy ñëw yaakaar naa ne buy ñëw sax heure ndekki bi mu ndekki woon du passé mu egg si waat ci biir. mu duggaat si biir kër gi. waaw kooku du liggéey ji. mané di dina liggéey mais day and ak sa gom. ah bo bu baax baax. mën na nek ba léegi fi ma koy téré rek. amna ño xamné dañ nan duñu and ànd ak seen sago mais ki day and ak sa ndax lepp lo koy defal temp waye mama mama jongi bu upp ci gor baaxul. mais ba tay baax mo moom la jëlee kër ak kër indi la ci bi këram. dafa ah, ko la war ci wa d'accord ba léegi bu la nexé léegi suñu waté ci bi kër gi moy ban heure. wa bala heure añ. ah bala heure añ. manam du dem lek ci restaurant ci bi kër gi rek. mayal ko sa suufees bu baax simmi ko. taal ko ventilo bi muy ëpp ngelaw di ko jaar fu ne déggoo ma ne. man man moom <laughs> amatuma lu wax. dégg ma. nga ba ko ca néeg ba dem ca waañ ba balaa ngay taal añ defaral ma ko ataaya bu foor bu ko defee léeg-léeg sax muy jaaban ci waañ bi di la wéttali. maanaam yaa ngi yaa ngi ci mbirum mbirum toggum añ bi. toggum añ bi ba léegi. boo ko bàyyee ci néeg moom parce que day wéet. ndeysaan mën nga koo defaral benn dosam bu baax. ay waaw nga sànni ko nunu subi. mën na nekk mën na nekk mu wékkali ko moom ah. nee na théâtre ma Mandoumbem waxoon na ma ko ci gannaaw nee na ma Mandoumbem beneen sens la. waaw man lii laa bu la neexee. lii laa wax li moom lii la wax de. wala léegi taa ñu aññi nu muy demee. waaye yow ma fas yéene ko toggal ceeb bu amul fenn. lu bëgg lu nekk loolu laa koy defal. ndax xam naa ne jigéen moom. Uh-huh. du ci biir lal ba donc comme ni ma la ko waxee sànq togg dañ cee war a joŋee. Uh-huh. déggoo ma de jus sax boo koy jox dafa am façon yoo koy. maman jox ma jus ci kanam la maman jox ma jus déggoo ma de loolu ci kanam ma jus yaakaar naa ne lépp lu bëgg a leer ci chaîne internet du Sénégal TV dina leer nañ. Uh-huh. lii laa wax moom lii la wax maman ba léegi yaa ngi ci añ bi maman ñëwal. waaw def sama añ bu baax sa taajum añ ma paree génn. daa di def sama tay baas bu baax def waxuma la tay baas de sama timtaat laa la ah maman timtaat mooy ban. timtaat boo xam ne dañuy jël pot xoolal dañuy jël fii rek balaa ko moom fees deen. maman bi nga sol xanaa mooy boobu. bii ah, ah. cum xam nga ne yii nii. simple la rek yii duma ko taajal ah ko ah simple la. d'accord simple la mun na nekk. Euh, ba tey ba tey euh, liñ ma joxoon ma euh, maman nag franchement parler sama xol mi ngi metti ndax émission bi ñu ngi may signalé ne ah, temps bi ñu joxoon jeex na ah waaw ba beneen yoon noonu dañuy ñëwaat ah, ah ci lii rek lii jël li à suivre la de ah, jeexagul ah, nuy la fi demee nag mbokk internet Sénégal TV ñu ngi woon seen émission nekk nu jigéen ci thème boo xam ne jonge lañ doon waxtaane ma dalaloon fi nag uh, sama invité mooy mama xale jonge mama ak sa dernier kàddu waaw man lenn rek laay wax muy xale jigéen ñi xale laa ci yemale ah mhm. jonge leen parce que jonge dafa bokk ci loo xamante ne day dundal nit dëgg la gis fleur yi ni ñu koy arrosé muy neex ci xolam noonu nga war a arrosé sa jëkkër ba mu sax sa xol. dëgg la de ba tax na nag yéen chez internet Sénégal TV jigéen na góor mag a ndaw yéen naa waxal jonge leen ndax dafa xew. ma leen di jox dig daje ba beneen yoon ci beneen boo ma invité waatee ma indil la yeneen paquet yu amul benn problème pour yow rek pour yow rek neex na kay ba noppi waaw nag ñu dalaloon fii koo koy xale jonge maman maa ngi lay remercier bu baax a baax si sa teewaay fii nii suñu bi euh, plateau euh, mbokk internet Sénégal TV nag euh, mu ngi noonu jonge lañ doon waxtaanee di leen jox dig daje nag ba beneen yoon ñuy baalu àq nag si kàddu yoo xam ne safaanoo fi fi yu fi jub nag yàlla sopp ko xéewal sotti ko si askanu sunu gaal di leen jox dig daje nag ba beneen yoon balaa loolu nag damay remercier suñu caméraman bi ñaawul bi moom nag dee na ci plateau émission bi sonn na ak euh, suñu assistant bi euh, di Fatou Diouf euh, ak fu yaani fii nag fu ñu nekk Korkasen moo ko moom ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko remercier trop trop trop ci disponibilité am di jox nag di jajee ba beneen yoon à